mbokki Sénégal déglu leen le 11 novembre bés bu mag ci arène nationale Mousnakh production la ñu ciy àndal mu ne première édition drapeau Madiop Diop maire bu Grand Yoff Mousnakh ne damay dem jëli serpent noir bu écurie Dóor waar koy jox nag ki nga xamante ne ni moom mooy doomu jàmbur écurie Jimbori combat spécial li mu ne damay dem jëli ji amul frein bu Kër Mbay Fall daal di koy boole ak Mayakoor bu écurie Grand Yoff mbooloo drapeau Angel Fall responsable politique jël dem dina fa jàkkaarloo ak mbokk yi drapeau Khadim Sam nee ko bu Cambérène ndaanaan bi dina fa jàkkaarloo ak sombi drapeau Thomas mbokk yi ak yeneen six combats préliminaires yu neex a neex a neex a neex ci bës bi ñu ànd ci ak Mousnakh production du xam ngeen ko ay ndaanaan kese lañu bu ñu ñëwee rek làmb ji neex